ndax li nga xam ne dafa wër diwaanu àdduna bi yépp di jàngoro mag bi nga xam ne ah moo jaaxal mag ñi jaaxal ndaw ñi jaaxal àdduna bi yépp ca yàlla def ko euh, wolof nag dafa wax ne daw ca ba ngay am ay tànk njiitu réew mi président Macky Sall ak kilifa diine yi tàmbale ko ci sëriñ Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg ca wér teg ci sëriñ Babakarsi, Sy nga xam ne général kër sunu maam si Aju Malik ak kilifa yëpp euh, bokk benn gis-gis bokku benn bëgg-bëgg bëggal ko réew mi bëggal ko askan bi bëggal ko àdduna bi mu yàlla musal ñu ci waaye tàmbali bi mooy di wattu ndax ñi nga xam ne ñooy docteur yi ah ku jàq jëm ci ñoom wala mbaa bala ngaa jàq daw jëm ci ñoom kon liñ ñu digal mooy fas yéene di raxas loxo yi gàtt tànk wattu mbooloo mi daje yi téye xale yi ndax xale yi ubbiwuñu école yi wala tëjuñu école yi ngir bàyyi xale yi xale yi dem ci mbedd yi déedéet dañu tëj école yi ngir bu ñu xale yi ñëwee ci biir kër yi ñu téye leen ngir ñu mën a mucc waaye nit soo koy téye yow mi koy téye da fay nekk kon bu ñu téyeloo xale yi téyeloo nañu mag ñi ngir ñu gàtt tànk wattu ndax lii nga xam ne mooy xew ci bitim réew ñaan ñu ko yàlla yàlla bu mu ak si suñu réew ngir li la muy def foofa di faagaagal yàlla bu mu am ci mii réew moo tax tey nag ma jël suñu kàddu ma jël sama kàddu bëgg a wax ak askan wi seetaan ak di ñu déglu en tant que communicateur traditionnel ngir ñu wattu lii nga xam ne mooy jàngoro bi gàttal tànk waaye wax ne am na mag bu baax moo xam ne euh, yàlla yàlla fayal ñu ko di Serigne Mor Mbaye Cissé euh, bu mosee di ñaan day ñaanal Amérique ñaanal France ñaanal réew yi ñu wër yépp doo ko ñaanal réew mi loolu nag tey dafa mel ni lii taxal walla lu mel nii moo taxal ndax dëkkandoo su amul jàmm doo am jàmm mbir dafa ko dégg muy Chine tey yaa ngi koy dégg France di ko dégg Amérique di ko dégg Italie faf na ñëw faf ci réew mi kon daal dëkkandoo jàmm moo ci gën dëkkandoo soo amee jàmm nga am jàmm moo tax mu ngi ñaan ci yàlla euh, ginnaaw bu ñu ñaanee ñuy fegu bii jàngoro yàlla génn ko ci àdduna bi yëpp ndax su génneen senegal ci génnul ci àdduna Sénégal doo am jàmm kon yàlla yàlla génn ko ci àdduna bi yëpp cay waxaat xale yi nañu leen téye ci kër yi mag ñi nañu gàtt tànk nañu wattu nuyoo bi nañuy raxasu ko man waxtu wu ne ngay raxasu ba set di raxas njaboot gi ndax yow rek nga raxasu rek waru da ngaa war di raxasu wax njaboot gi ñu raxasu cay wattu cay wax njaboot gi ñu wattu gàtt tànk loolu daal moo taxan tey ñu def ci ñuy suñu participation ca xam ne lu ne la ñu daan wax waaye wax lii moo war en tant que communicateur traditionnel di baara dëkk ci ma jël sama kàddu dajale leen yéen ñii presse bi am ci ñu dajale ndax xam nga ne dajaloo bi sax bëgguñu ko ñu am ñu ñu dajale ngir wax ngir àdduna bi jot man cee sukkandiku man koo def di digalaat ko digal suñu bopp di gërëmaat njiitu réew mi di gërëmaat kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ñaan ci yàlla yàlla kofi ko fi di sant nyep, di nyep. ñëpp eh, jërëjëf merci